amuñ ci benn kaa bu jóge bitim réew maanaam importé waaye am na ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñu tuddee cas communautaire mooy ñu jox ci mbas mi fekk xamuñ fiñ ko jëlee wala ki leen ko wàll ñu nag seen lim nii la tëddee ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci juróom fukk ak juróom-ñeent ci gox yi juróom-ñaar ci Mariste juróom-benn ci parcelle Assainies ñeent ci Géejawaay ak Cité Lobatt Fall ñett ci ndakaar Plateau Liberté 6 ak Ouest ñaar ci Jëppal Castor Yoff HLM Las Palmas ak Kër benn ci HLM Fass Fass Delorme Bopp Amitié HLM Montagne Derklé HLM Wakam Cité Asecna Sacré-Cœur Mamel Grand Yoff Cambérène Sébi Xotaan Diamniadio Grand Mbao tikin dalifor ak Rufisque ci région yi am nañ ci ñeent fukki ci gox yi juróom-ñett ci Saint-Louis juróom-benn ci Vélingara juróom ci Thiès ñeent ci Kolda ñett ci Popenguine ak Mbour ñaar ci Saly ak Mbour benn ci fatik kawlax Kébémer Makka Koulibantang Tivaouane Touba ak Ziguinchor ñett téeméer ak juróom-ñaari malade ñetti téeméer ak juróom-ñaari malade ñi xam ne dañoo entré woon hôpital am ñi nga xam ne aussi ñu ngi nekkoon ci biir kër yi wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu si yàlla ànde fanweer ak ñaar ñoo nekk réanimation ñeent malade ñàkk seen bakkan bu su démb ak ajjuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñoo xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba senegal wàññi na fanweeri junni ak juróom ak juróom-benn ak juróom-ñeent fukk ak ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak ñeent ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñett wér nañ ci junni ak juróom-ñaar ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar si lalu hôpital yi ak ci malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ministère la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñoo ñu génn àdduna yàlla xare leen a àjjana di ñaanal ñoo ñu des hôpital ak ñi xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère la santé et de l'action sociale mu ngi leen xamal tamit bi campagne vaccination bi dooree ba léegi ñu jot a ñàkk ñu ngi toll ci téeméer ak juróom fukk téeméer ak juróom fukki